waaw ngeen may ma ma delluwaat ma gërëmaat santaat coalition Yewwi Askan Wi wante bii moom ngeen may ma ma gërëm particulièrement la coalition au niveau du département de Dakar di leen di gërëm di leen di sant ci seen taxawaay ci tamit wax dëgg yàlla jàppale buñ may jàppale ba mbir bi euh, tàmmale ba tey loolu nag euh, su weesoo ngeen may ma ma mën a fësal lu ma waxoon démb mooy dañuy woo jeunesse sénégalaise particulièrement askanu ndakaaru bi en général ñu ngi leen di woo ci mobilisation général mais ñu ngi leen di woo tamit ci résistance résistance moom ku am dégg-dégg rek moo xam nu mu koy déggee wante ndaw ñi ñoom lay waxal dama ne pesum kanam boroom a koy fajal boppam dëkk bi du moomeelu kenn dëkk bi ñoo ko bokk ñun ñëpp kon nag lu ñu namm ñun ñëpp ci réew mi mooy jàmm mooy salaam mooy tamit démocratie moo tax ñuy xeex ngir ëllëku Sénégal mbokk yi ñun yàlla daf ñu may ñu juddoo ci réew mi dëkk fi yaroo fi di fi occuper tamit ay responsabilité yu kawe ci loolu nag yàlla may ñu tamit ñu mën a am accès à un minimum d'information parce que nag kuy xeex dangay am information su ma baat ci kaw résistance bu ñuy woote dañ koy woote ndax lu nguur gi ma def ci mbiru élection yi ñoom procès bi dañ jàppoon ni que man du ma jàpp du ma du ma am candidature opposition pour mën a nekk candidat ñoom loolu lañ yaakaaroon moo tax procès bi sax ñu amoon sax jamono ñu xawoon ko teg ci suuf wante ñoom ñu demoon ba ci biir ñoom ñu amoon yaakaar mënoon nañ ci seen ay pexe wante nag pexe yu saay-saay ci seen pexe yu saay-saay boobu ñu amoon yaakaar mënoon daal ne que maire de Dakar dañ kay nome ci décret présidentiel loolu ñu xuus ci xuus ci amuñu si ndam ñu daal di bàyyi wax jooju ñu ne waa comme mbir bi ñi la tëddee. ñun nañu xool nan lañu mën a def ba lii di mairie de Dakar ñu seyal ko mu bañ amati loolu tamit yàlla xañ leen ci ndam tey nag lu leen dese mooy jéem a xool lan lañu mën a def ci pexe ba man mii Barthélémy Diaz ma bañ a am jotu campagne wala ma bañ a tal campagne wala sax lu leen gënal sax mooy ma bañ a fekkee élection yi wante comme ñoom du ñu yàlla du ñu rakku yàlla dañuy nax seen bopp di fooy seen xel parce que loolu yàlla du ci ànd bu ci des nag te ñu may dégg lu ñu namm ci woote bu ñu woote mooy ñoom luñ ci namm mooy am ci situation bu leen di may excuse <coughs> pour que dëkk bi fitna yeewu ci dëkk bi ndax ñoom ñu bañ a organiser élection kooku ngeen may ma wax ak kii di président Macky Sall ah, ñu ngi nag ci càppaandaw bi bëgg a bëre di nga bëre bañ a bëre di nga bëre parce que dëkk bi du soo moomeel ñëpp ko bokk yow mii ba ngay falu dafa amoon ku fi toogoon kooku tamit nekkoon garmi koku am lu mu nangu ci démocratie mu doxal ko ba alternance am ci jàmm ak salaam tey nag moom waa ji te waxoon naa leen ko ba ñu génn ci élection présidentielle archives yëpp ñi fi ba ma koy wax ñu ne Barthélémy Diaz wax yu muy wax wax jooju ay wax yu daanu saret la man leen man duma ma waxantu ci politique parce que Macky Sall dafa doon ragal ba nga xam ne damay jàkkaarloo ak moom di xeex ak moom ma xam waa ji lu mu lu mu lu mu lu mu sañ a def ak lu mu sañul def lu mu ñeme ak lu mu ñeme ak ak lu mu ñemewul ma waxoon leen fii ci Fun City ci 2009 ma ne leen kii waa ji lu mu namm def mooy toog ci réew mi juróomiyaat te du fi organiser benn élection ñu ne ma loolu mënul nekk ma leen kaay leen ñu dem li ci kanam raw li waaw seetaan daq ci ndaje seetaan ngeen ba ñu egsi fii élection député namu ko organiser élection maire daf ko ràndal ràndal su nekk loon mois de marse bi élection maire élection locale du am ci février eh, excusez-moi ci 23 janvier 2022 du ko organiser mars bii moo tax mu organiser ko ndax lan bëgg a rek calmer la situation vous tous jot ngeen fi dégg benn journaliste journaliste bu tamit <laughs> ah, am maanaa ci dëkk bi parce que tamit day dugg fu nekk <laughs> te liggéey journaliste mais wuti information moom mu toog fii ci plateau télé yëkkati baatam ne lu leen neex wax leen ku mu neex na ko xas wante moom gëmul ne ni que élection dina am le 23 janvier 2022 te ma bëgg ngeen bàyyi ci xel moo tax ñuy wote ci résistance Macky Sall dina organiser élection parce que loolu mooy waru garam su ko organiser wulee tamit lu mu namm ci élection yi mooy jëm ko ràndal ndax lan ndax bañ a ñàkk élection kooku tamit Macky Sall su ko defee daanaka ci gàttal moom mooy écourter son mandat kenn du ko fi nangu fii kenn du fi interpeller kilifa diine kenn du fi interpeller kilifa aada ñoom ñëpp def nañ seen kéem kattan dox nañu lu ñu naroon dox wax nañu ak ñuy naroon waxal wax ji mooy lan dëkk bi il y un irresponsable un inconscient qui dirige ce pays et qu'il pense qu'il a le droit de faire lu ko neex la preuve du dugg na roplaanam dem na du noonu la a ah, baax na demal comme dem nga bàyyi nga fi jàmm lu ñu lay ñaanal mooy na nga dellu siwaat fekkaat fi jàmm ci kaw nga ñite waaw loolu mooy wax ci